jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci 28 Pro TV mbokk yi ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci spécial tabaski 2018 28 Pro nag fas yéene def benn plateau bu yaatu dem seeti kilifay diine kilifa aada ñi nga xam ne tamit ñoom la nekk ci réew mi fas yéene saafonteeg ñoom waxtaan ak ñoom ñu waxtaan ak askan wi tamit ci li nga xam ne moom moo jëm ci actualité bi nga xam ne moom la réew mi yëpp bokk gannaaw ba ñu leen baaloo àq di leen baal àq ñu ngi ñaan sunu borom jéggal ñu teewee ko ay at yu bëri ñu fas yéene na ñëw nag fii nga xam ne moom mooy euh, kër honorable euh, député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké bokk ci maanaam opposition bi nekk ci parti bokk gis-gis bu euh, président Pape Diop mbokk yi moom la ñu fas yéene tey dalal waxtaan ak moom nuyu askan wi saafonteeg moom ci spécial tabaski bii nii ñu ngi koy dalal ak jàmm ci 28 Pro TV sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi nuyu mbooleem ñi nga xamante ni ñoo ñuy déglu ak di ñuy seetaan di ndokkeel ñi nga xamante ni mboolem jullit yi nekk ci senegal di ndokkeel murit yëpp di ñaan xalif général de murit mun taxa yàlla yàggal ko fi te wéral ko di am mbëgt bu baax ci dalal leen fii nga xamante ni tey suñu kër la ci xayra ginnaaw bi ñu defee yi nga xamante ni mooy ndigal yi ñu waroon a def yëpp ci bis bi xëy dem julli ji déglu xutba bi déglu xalifa général des mourides kon fa jógee ñu ñëw te rey suñu xar bokk njaboot gi yëpp li nga xamante ne mooy bànneex bi ak ndigal bi nga xamante ne suñ maam Ibrahima alayhi salaatu amoon na ko ci suñu borom ndigal boobu noonu tey mu war bis bi tey ba lii am si comme ni ko xalifa général des mourides waxee rek ndigal boobu tey moo war bis bi lii li am lépp am comme que ñun ay murid la nag te war a wéyee ndigal. ginnaaw bu ñaanalee xalifa bu noppi nag ñi ngi ñaan ñëpp dégluñu seetaan ñu tey tamit ñu wax li nga xamante ni mooy intérêt réew mi incha allah. Euh, ni nga koy waxee noonu la bi ci euh, actualité ci discours euh, dañ koy tàmbale ak discours gannaaw bi nga bi ñu defee maanaam xutba bi ba pare dégloon ñëpp discours xalifa général kul murit moom mooy nit ñi jubluwaat suñu borom jaamuwaat yàlla jëfe ndigal bàyyi tere. loolu en tant que député yow ban message nga ci mën a eh, indi en tant que élu du peuple waaw day message bu am solo boo xam ni c'est Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu loolu sampe woon xab yi mu yoonu murit mu di lépp lu am mi ngi ko jëlee ci yonte bi sallallahu alayhi ci ndiglu sama boroom li nga xamante ni tey mooy tax ñu mën a dund mooy tax ñu mën a nekk mooy tax ñu mën a am liñ bëgg mooy li sëñ bi wax loolu nag ñun ñëpp dañu ci ñaax te xam ni pom yi bari na kon yoon deful ñu war a seetaan comme mooy ki nga xam mooy njiit bi bu waxee ñëpp dégg te yàgg na di wax ndax ku ne xam ne Sëriñ taxaa ci discours am yëpp delloo ñu ci yàlla te lépp loo xam ne mooy mbirum àdduna amul ci soxla kon ñi nga xamante ni ñoo ne ci ginnaawam nag war nañ koo noppal ci ci jëfe ndigal yi nga xamante moom lay joxe en tout cas incha allah man de képp koo xamante ni yaakaar ngam ngir sëñ Touba maa ngi lay woo ci li nga xam moom la xalif général des mourides wax ñëpp ñu maas tënk si te xam ni liggéeyal sëriñ Touba bu mu nangu mooy jaamu yàlla bu wér. bokk ci li ñuy wax souvent moom mooy na askan wi wàññi wàññi li nga xam ne moom mooy jàmbat bi. Euh, opposition nag moom ku ko xam-xam ne ci jàmbat la gën a mën a euh, ŋàññi ak jàmbat loolu bokk na ci seen maanaam li nga xam ne moom mooy tamit créneau bu nga xam li ngeen jógee loolu yéen fan ngeen ci taxawee. xam nga jàmbat mënul ñàkk si nit ndax doomu aadama yàlla moo ko bindee noonu moo ñaale ko wàcc ko si àddina ngir muy jàmbat ak di ñaxtu ndax bu doomu aadama matoon duñu am ay kilifa. bu doomu aadama matoon yàlla du wax ak moom ci fasin waxin yu bari yoo xam ne wax naa moom ci alxuraan di leen fàttali li tax muy ñu leen fi kon doomu adama moom matul kenn matul yàlla rek moo mat ba tax na kenn ku nekk tey am na loo xamante ni defoon nga ko démb rëcc nga ko tey am loo war def ëllëg xamoo ko mais njërmaane yàlla moo gën a kawe fuuf si jaam njërmaane doomu aadama opposition bi du ñaxtu lenn lu jëm si moom dama def lépp lu muy def rek pour population pour Sénégal la ndax jàpp naa ne Sénégal fi mu toll nii benn nit mënu ko jiite te ku koy jiite ku nekk da nga war a Sénégal yi dëgg te am yërmaane te ñi si nekk jàpp naa ni yoon boobu nga xamante ni Serigne Sidi Mokhtar yàlla na yàlla yokk ay leeram daan leen ko wax mooy ñuy yërëm néew doole ji yaakaar naa ne misaal Serigne Sidi Mokhtar dégluwuñ ko woon moo tax tey Sénégal fii mu toll mu toll fi ndax ku ne xam na ni metti na Sénégal métti na boo jógee dem ci àll bi nga xool maral bi nga xool jur gi ay eh, sa yaram day daw Sénégal métti na trop trop trop trop kon nag yërmaane yàlla rek moo ñu si mën a génn ndax Sénégal dafa am loo xamante ni il faut ñu bàyyi ko xel mooy ñun dañoo toon yàlla yàlla bi ñu toon moo tax mu indul ñu Macky Sall pour maanaam nattoo ñu ko loolu nag il faut Sénégal yi gëm loolu. benn buur boo xamante ni ñu tegas ci kaw du la def lu bon loo xam doo si man dara. ba keneen nga tuubalaat sama borom doog a jëlaat nguur go jéem a jafandikoo ndax ku ne xam ne juróom-ñaari ati Macky juróom-ñaari oto bak bekkoor la mais bu bu bekkoor jàllee ah yaakaar naa ni eh, xewal mooy ñëw naataange. lan mooy firndeel bekkoor boobu. ah waaw li koy firndeel bokk na si tey jii nawet bi situation nawet bi xam na ne nawet bi li tey jii àll bi yëpp dañoo maral ndox mënul am si réew mi xol yi surtout leen toppaat mooy dëkk bu dem ba dara di manqué ci réew mais day firndeel bokk bekkoor. dëkk ba dem ba nit ñi marut maanaam mun ñoon naan ndox amul mais day firndeel bekkoor tey waxuma la Dakar mais Touba gi amul ndox ñu jëm si màggal goo xamante fa lañ jëm ñu def seen sabotage tàmbali ko pour maanaam li nga xam moom la ndànkoon rek ci affaire ndox Touba yi tàmbali ko fi ñu toll nii ndox mhm. ñu jëm deux mois màggal jot léegi bu ñu nee ba màggal nag nan la ñuy def mhm. loolu bokk na si bàkkoor mhm. essence bi nga xamante ku ne xam dafa am ay jafe-jafe loolu bokk na si li nga xam mooy mandarga bekkoor Sénégal yi nga xamante ni mënuñoo jox mënuñoo jox kontaan loolu bokk na ci kon nag loolu rek moo lay wan ni fi réew mi toll fi mu toll nii rek mm-hmm. il faut ñu toogaat xoolaat suñu bopp xool nan la ñuy doxale déglu kilifa diine ndax nit bu demee ba déglul benn kilifa diine amul kilifa lu ko neex lay def faalewul kenn jàpp naa ni su boobaa réew mi ngi bëgg a soof te 2019 nag le 24 février jàpp naa dana métti trop. mais bala ñuy àgg ci euh, président de la république woote na dialogue ba tàyyi euh, wuyu siwu leen loolu est-ce que jàppale na yéen échec la ci yéen parce que 2019 euh, sept ans ni ngeen ko waxee toog na sept yooyu yëpp di leen ci woo dialogue ngeen lànk ne du ngeen wuyu ji est-ce que tamit loolu bokk na ci li nga xam ne moom mooy doxal parce que boo malgré bekkoor am na ci réew mi mais teewul nit ñaa ngi circuler li ñi ñu war a dox ñu ngi war a dox récemment rek yéen en tant que député li ngeen war a servir à temps et le reste du peuple nag ñoom ñi nga xam ne souvent ñoom ñooy jàkkoonte ak souffrance boobu noonu est-ce que tamit benn côté yéen en tant que opposition du ci amu leen ci part de responsabilité. xam nga dialogue boo koy woot day nekkul dëgg booy wootu dialogue dañ koy gëm te loo wax nga def mais koo xam ne yaa ngi woote te sàmmoo sa kàddu ñu ngay woo du la gëm. ci naka Macky Sall sàmmul kàddoom. lu tax Macky Sall bu nee la kaa ñu dialogue fekkante sàmm daf li mu war def yëpp ba pare toog ndax mënu ma nangu ñu jëm si ay élection processus électoral kenn kenn waxtaanu si ñam sa wowoon tey nga xam ne dañoo ñëwoon mel ni opposé tey mais mais loolu nag na leen ci xam nga woote boo xamante amul benn taxaw télévision bi ñu laaj la rek nga ne maa ngi woote jolo tàll naa loolu loxo mais ñun du ñu ay xale Macky Sall xamoon na ko depuis 98 boobu nekkutoon dara di sama papa nekk di assemblée nationale 98 xam naa Macky Sall mi nekk bi président Abdoulaye Wade gagné 2000 2000 ba 2002 Macky Sall mi ngi ñëw sama bureau papa xam naa ko xam naa ko comme ni ma la xamee mais du nit koo xam dafa sincère lu mu wax gëmu ko. mais jamono dama ne Macky Sall laa wax pas ma ko xam laa la wax ba léegi mm-hmm. lu mu lay wax rek am na lu mu naat si suuf. li am solo rek mooy dialogue boobu noonu daf ko daf daf ko waroon a njëkkee am nu mu ko def mooy fi mu njëkkee mooy ki nga xam mooy baayam muy Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade fa la waroon tàmbalee. Mm-hmm. mais tey ku ne xam na ne bi mu ñàkkee réew bi Ablaye Wade ñu ngi koy ñaan yàlla guddal aw fanam lam njëkk a def mooy toroxal ko oto yi mu doon war yëpp mu nangu oto yi ñu jiñ ko ay sàcc ay tàppi ba pare maanaam nangu këram tëj doomam loolu koo bëggee jolo ci ñi nga xam ne yéen a nekk ci benn eh, ëtt tey jii yéen ñëpp ngeen daa bokk di reer ci benn ndab bi benn bool bi seen bàyyi nekk fi toog mm-hmm. tey nga toroxal seen bàyyi pare wañu ko waa kaay la ñeen ñu doon lekk ñu bokk lekk kooku koo def day lànk te xam na ni boobu lu amul. Hmm. aussi ñaari parti politique boo ko yoree ñu lay woo dana war a bind lettre nga jot ko booy wax nga wane preuve wane ni kat bindoon naa leen ñu ngi nii. Ah, mais tey fi may wax ak yow amul benn ah, problème dialogue bi mosuñu ko notifié fenn ñun de ñun de may wax ak yow jotuñu notification boobu noonu hmm. te ñaareel ñi nga xam wuy ji woon nan waaw ñooñu waaye ñooñu lan moo tax ñu wuy ji ñooñu mais tey lii leen bëggoon ndax ñoom ban wuy jee jàpp naa ni tey euh, boo jëlee ko si mel ni Fada demoon na tey yaakaar naa ni nga demoon wuy ji loo xamante nangu woon ko tey nga dem fekkaat leen mooy day mel ko benn lu woon ñoom mm-hmm. ndax ñoom ñu ngi bëggoon jàll ñu bëgg ko jàll ñu ñu ñu woote woon léegi nag bu ñu wootee ci loolu ay fadaak ay ñoom ñëpp dem wuy ji woon leen ñoom ñëpp ñu ngi seen làng kon mm-hmm. daanaka ñoom ñoo doon woot seen biir mais ñi nga xam ñooy parti yi jar a waxal nga xamante ne tey ñoo représenté sénégalais yi muy la PDS la bokk gis-gis ak autre parti la ñoom ñu dañ leen a boolewul si dara pour doxal réew alors Macky Sall mukk te dugaloo si mun na ah, am. à quelques mois kenn mënu ko jàmm mun na am. alors mois des élections président Macky Sall discours bi mu def ci tabaski bi spécial tabaski la ñu àndal ci 28 Pro TV moom mooy dafa ne maintenant fini le dialogue euh, léegi li des moom mooy aller aux élections loolu yéen est-ce que yéen am ngeen seen garde euh, bi nga xam ne jël ngeen ko pour dem élection jàkkaarloog moom naka ngeen koy préparer ci loolu nga xam ne wax na ko. ah lu tax. Macky sàll bu demee élection yi day daanu te ñun pare nañu Karim Wade nekk candidat Khalifa Sall bu nekkul bu nekkul candidat Macky élection du am Sénégal loolu moom xam na ko moom. li tax muy daw di përti përti dem ci xalifa yi di ko ay ñaan ak ndimbal pour wax pour xalifa yi waxam ñoo xam ne ni wut si woon fii yooyu yëpp da di loo xamante ni tey duñ ko ko may te duñ ko yombal la ndax réew mi ni ko jot ni mu ko jot woon ci Ablaye Wade mhm. jàpp naa war na ko mën a joxe noonu mais moom dafa bëgg taal réew mi mhm. bëgg taal te yor sa arme yor sa pétrole toog di xaar mais nit ñi nga xam ne ñooy citoyen ñi ngi toog di xaar. en 2012 en 2011 sax euh, loolu moo fi xewoon ba ne président Ablaye Wade dafa bëgg a taal réew mi. mais gis nga li fi amoon tey jii ñoom ñi tey jii li ñu doon bañ ñëpp tey ñoo ñu ngi ñi nga xam ñoo doon ñëpp loo tey ñëw na nangu ko tey ñoo nekkoon si wetu foofu di jabali si Ablaye Wade dafa bëgg a jox doom bi réew dafa bëgg di yàq réew mi. tey bari loo xam ne signante woon nañ ko ay accord ak population bi te ñoom ñëpp dañoo war. la président Macky Sall wut si woon Touba yéen peut-être député yi am ngeen ci tuuti. écho si wut si woon bokk na ci ñëw ci sëñ bi wax ko situation réew mi xam na ne réew métti na. Mhm. xam na ni moom réew métti na tey tamit lii nga xam moom la débarqué démb da ko yéex a def ndax Macky Sall yaakaar naa ni. ah Macky day bett léeg-léeg gars yi di ñëw li Touba yëpp mooy ab dëj ak màggal Touba kese moo tax mu fi daa ñëw. dëj màggal Tuubaa rek tax Macky def Macky def na ay visite surprise euh, bi fi ñëwee ñëw na fi seet sëñ bi bon la wax man la yàlla xaw ma ko mais en tout ne pour réew mi la ah jéemu leen ko euh, lijjanti non duñ ko lijjanti ndax ñuruñu ndax li mu wax maanaam. un président qui se déplace vers un xalif général ngeen loolu ñoru leen en tant que député. li mu wax ñoru li mu wax ak sëñ bi. léegi ban compte ngeen euh, euh, ñeneen ñi. li mu wax ak sëriñ bi ñor ñu mooy li ñuy wax ak sëriñ bi. Euh. moom même est ce que est ce que un député war na toujours di maanaam bañ a gëstu li nga xam ne moom la président de la république di seet si ci localité en tant que élu. de sa localité boo xamante yaa représentant de peuple te maanaam président de la république bu ñëw si dëkk ba du la nga xam ne moom lay moom programme ñun mm. moom amul programme pour Touba dafa ñëw pour seet si euh, sëriñ bi wax naa moom sëriñ bi moom Touba waaw mais c'est-à-dire li nga xamante ne moo ko fi indi bokkul ñun li ñuy dox cest man damaa jàpp ne moom li ko fi indi bokkul ñun waa Touba li ñu bëgg mm. li ñu bëgg mooy ndox assainissement te loolu lépp def si dara ak ki nga xamante moom lañ am si axam ba mu jox ko cër ñu bëri nee nañ gisaguñ en tout cas benn acte boo xam ne posé gum ko que pour doléance population bi nga xam ne ñoom ñoo leen faloon. oo mais xam ne ñoom ñi koy wax da nga leen di laaj da dem Dindi nga dem Daaru Saw nga dem Kër Ñang nga ñëw Xayra 2. comme lan. mais man chaque mois danaa def maanaam ay ay addi chaque mois danaa yëkkati sama trang jox ko askan wi pour ñu ay ay euh, ñu jox ko seen euh, kuréel seen. Euh, groupement yi. maa ngi liggéey askan te aussi li ëpp solo rek mooy député li ñu koy fal li mu waxoon ni dana ko def. pour daxawul askan wi jàpp naa ne population boo defee sa micro trottoir xam ne Cheikh Abdou Bara Dolly ak ñi nga xam ñoo fi nekk bu dul ñëpp tamit. lan war a taxawu Touba ci assemblée nationale ñu ngi koy def man loolu laa jàpp ndax population Touba am na satisfaction si ñun. xalifa général de kontaan si ñun kon jàpp naa ni ñooñu bu ñu kontaanee rek jàpp naa ni li ñu war def yëpp ñu ngi koy def. ko amoo ci ni maanaam Touba danañ fay ndox. xam nga ñoom loolu lañ bëgg mais am tuuti loo xamante ne dama ko bëgg a leer askan boo gisee sabotage yi ñii màggal bi si ñii fi fi may wax yow tey ndox amul Touba robinet dañoo coupé dañoo sonn dëkk bi mett na loolu lépp pour xorñoonu nit ñi ak population bi fi nekk ni mu bare xaalis bi mu war a génn yooyu yëpp moom loolu la ñuy këlkin mais li am solo mooy Serigne Touba moo yoral boppam Touba. ndax bi mu fiy ñëw di di fondement dëkk bi di joxe ndigal pour jumaa ji Serigne Modou Moustapha Serigne Fallou ba ci Serigne Saliou bi mu fi ñëwee daal di yaatal dëkk bi 45 kilomètres xëcc ay ndox ñu dugg si biir dëkk yi mu ne leen ñëw leen ndax su Serigne dafay woote social. social lu Serigne Touba nag wóortu ma social Macky Sall moo tax que xëy na mag Sall ñëw fi ay indi benn social boo xamante ni ay douze mille francs la par weer nangam nangam léegi nag moom bëgg nangu social bëgg bañ social si Ahmadou Bamba bëgg ni Touba li sëñ Touba doon wax naan maanaam nit ñi ñoo leen ñoo leen dëkk texe euh, am jàmm am xéwal te du ngeen sonn léegi après moom Macky Sall bëgg a ñëw dindi loolu mais loolu duñ ko nangu te duñ ko nangal li sëñ Touba bëgg si dëkkam bi mooy li yooyu du Macky Sall mooy ñëw di ñu imposé honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moom la ñu dalaloon ci seen 28 euh, Pro TV euh, bi nga site bi nga xam ne donc moom moo leen indil actualité bi xew ak bi askan wi soxla saa su ne. alors bon euh, bala ñuy jeexal mais sëñ bi naka la tabaskee moom. waaw tabaski rek tabaski daal vraiment def nañ ko ci jàmm njaboot bi ñu ngi fii ñu ñëw na ànd ak njaboot bi yëpp ak waa koñ bi. Euh, wax dëgg yàlla neex na daal neex na waaye xam nga man moom daanaka dama xëru si ay affaire yàpp ak yooyu. ah ci xër euh, man dama def lu sama ceeb dinaa laay def rek xam nga. ci jour tabaski bàyyi xale waaw mais xam nga rek. xam nga dama moom moo sa choix. waaw moom daal mooy sama choix. mu daal ceeb ginnaaw laa bëgg. <laughs> voilà euh, voilà moom moom yàpp bari ma dama ko tàmbul aussi xam nga ko leen dëkk moom. mais non dal la ko digal. déglu ma ko sax mais xam nga rek euh, ñun dafa am yoo xamante ni aussi noonu la ñuy doxal en na ñu ngi ñaan daal ñëpp jàmm. amiin ñaan njaboot gi ak famille bi yëpp. amiin di ñaan sénégalais yi bon vraiment di ñaan ñaan nawet ak si jàmm nawet bi na de. waaw ah, loolu saako ngooñ bi jël 9000 francs ba 10 000 francs saako ripaas amul. mais loolu nag mais mais loolu nag ci baykat yi la de. non du ci ko mën a. Ah, du ci nguur gi tamit de. nguur gi la ndax nguur nguur jaayut ngooñ. mais nguur nguur jaayut ngooñ. baykat moo jaay ngoonam moo bay bayam. kii jënd ngooñ dafa amul. non honorable xam nga honorable honorable à chaque fois ñi accompagner leen ci ay ay subventions maan di leen jox. engrais bi am nañ aliment bataay bu doy. duñ jënd ngooñ. aliment bi moo gën ngooñ. ah waa waa mais. mais amuñu ko. mais lan moo ko waral. mais amuñu. mais yéen defal ndànk ma ne yéen baykat yi dal leen di bayal ba mu jeex ngeen jaay seenam ngooñ bu période bi tollee ngeen seeral ko ko kay am loo xam ne moom lay dundee li muy dundee état si boobu dafa carrément benn condition boo xamante ni dafa war di wut élément bu doy nit ñi di ko jënd ci prix bu yomb mais boo demee tey ji ba saako ripaas gën a seer saako ceeb saako ngooñ toll ak saako ceeb mais kooku état bi la état moom mooy responsable lépp lu am ci réew mi. waaw parce que opposant la. mais ku jiite réew ko yow la laaj maanaam. alors donc euh, merci beaucoup en tout cas merci mu nekkoon honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly bokk ci opposition bi di parti bokk gis-gis bu président Pape Diop. Euh, di leen dig daje ci beneen dekk coordinateur fii ci Touba ci département bi euh, ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ci ni ñu xam ne noonu la ñu yombalee liggéey bi di daje beneen yoon.